seeni cellule yi ñu leen tëj sa prison la yi la détenu politique fësale seen ñàkkub ànd si loi d'amnistie général bi njiitu réew mi Macky Sall fas yéene jébbal waa assemblée nationale ngir rek ñu faxas lépp lu jot a xew si réewu Sénégal mars 2021 ba jonn yàlla tey Hannibal Djim Bentalib saw ak ñeneen ku si nekk rek jàpp nga ni yëfi yanuwul maanaa Souleymane jim bokk si collectif bi ëmb njaboot yi loru si les manifestations ak ñi ñu tëj yëf yi daal saaga la ko jàppee. tappale musul weesu ngay jël ay doomu jàmbur nga buum leen nga rey leen ñeneen ñi nga tëj leen def nañu foofu lu ëpp at nga xëy benn jour nga naan pour pacifier l'espace politique da ngay da ngay def loi d'amnistie. loolu noonu yëpp la bëgg effacer à travers cette loi d'amnistie. bile collectif li ñuy sàkku mooy képp ku ñu jàpp si les manifestations ñu àtte la si anam gi mu waree. parce que ñu ñu rey il faut ñu xam kan moo leen rey. lu ñu tëj ñoom déjà à travers euh, ay appel bu ñu def dañoo marqué seen désaccord ñoom lu ñu bugg mooy ñu juger leen. Seydi sama it àndul si bile loi d'amnistie si si gis-gisam crime financier di luubal yi ñu luubal alalu réew mi yëf yi waruñu bàyyi mu sedd noonu. li mu ci jublu Macky Sall mooy feexe bi ay ñooñam ñi nga xam dañ leen tuumal ci ci luubal réew alalu réew mi ñooñu yëpp n'est-ce pas li leen topp ñu daal di ko effacer. Euh, bokk na ci Petrotim affaire Prodac euh, bokk na ci affaire fond Covid 19 ak rapport yu bëri bëri yoo xam ne Cour des comptes def na ko te publié ko di wax état que loolu duñ ko mus a nangu te njabootu duñ ko mus a nangu waaw commission d' enquête moom la ñu diggoon Sénégal yi créé wuñu ko. moonte de ni si général bi war na tax. yenn candidat yi ku mel ni Ousmane Sonko mën a bokk ci élection présidentielle yi ñu mal waaye nag ci gis-gisu ñii di xeex ak ak yelleefu doomu aadama yi lii jot a xew fii ci mim réew bakken yi rot ak ñi ci loro yëf yi waruñu ko jàllax rekk teg fële.